Eh, jaajëf sama gars yi salaam jaamakum mbedi niges baa ngi nuyoo leemaakum mooj bul waa dégg ko fay mi chef boy ji ji ji der équipe boy grand mi si takke mëne fu ne maa ngi leen di bégge bu baax a baax di leen ziar bu seet dans votre émission préférée Galsen Sama Game sur Equivox TV tey ñu ngi fi dalal eh, as the best eh, from way géej dinañ waxtaan ci début carrière am ko dugal ci musique ak yooyu yëpp mais avant ñu yegg foofu dama koy jox mu nuyoo après ñu dugg ci biir waxtaan bi Mr salaamaaleykum Jili salaam waa Equivox salaam tout le monde gars yi di suivre émission bi yëpp maa ngi nu béggee bëggee As The Best la million flow. jaajëf As Best million flow comme ni mu ko waxee mais As euh, kañ nga commencé def euh, lii di rap wala musique tout court. bon rap mun naa ne que commencé naa bu yàgg mais maa ngi commencé sama carrière ah, bon selon man nu mu koy gisee depuis 2017. laa commencé vraiment di génne ay son def ay single doo ko ci plateforme YouTube mais avant avant 2014 2017 <clears throat> genre 2013 2014 ci laa commencé vraiment di fowantoo rap di def ay freestyle à côté et tout donc 2017 euh, wala 2019 pour man laay wax ni mooy sama début quoi ci musique hip hop. maay maay ni nga 2018 la génn. 2017 la génnoon ñu ngi génnoon le 29 janvier 2017. Maniga après euh, ay DGD freestyle def ay euh, Best Friday après nag ci la commencé lancé promo million flow bi def ay single comme No More ainsi de suite mm-hmm. yes jaajëf euh, as kan moo la influencé sa grand frère wala yow mooy loolu waaw waaw sama grand frère bokk na si ñu ma influencé parce que mun naa ne man ak moom ñoo defandoo lépp ci côté parce que man ak moom magante magante wuñu noonu noonu noonu mm-hmm. je pense trois ans la magee xaw ma quatre ans donc euh, affaire yu bëri mun naa ne ci moom laa gisee <clears throat> à la base musique si man moom ñoo ko foo ñoo ko commencé di foowandoo même si que mun naa ne moom ci gënoon nekk quoi voilà man tout le temps yi ñu wax non mënoo musique papa di musique dama la jàngi bàyyi moom musique ainsi de suite mais man bon yàggoon naa am amour bi dépp bu may nekk booy màggaaleeg moom tu vois donc moom bokk na ci ñu may après mbedd bi aussi ji pop à côté yenn gars yi parce que dama soboon dama bëri woon ay fréquentation képp ku ma xamul ne rapport nga et yàgg nga ci wala ma gis ni mën nga rap rek mhm. dama la daan jege ay grand yi nekkoon sama koñ yoo xamante ne ay rappeur la woon tu vois ñoom mën naa nekk yenn affaire yu bëri si ñoom laa commencé gis mhm. après nag ma commencé vraiment génn ci mbedd bi tësanteeg sama gars yi dem école di rap mhm. dugg si ji pop bi participer ci ay concours ay freestyle yu ndaw ndawaan ba nii ah. mais léegi tout le temps bu la gisee dangay ngay way ah day way day way rek da bàyyi rab bi carrément wala. non du tout le temps tout le temps parce que. parce que musique man musique laay def ma rab kese quoi. Mhm. c' est très normal bu may commencé rab laa doon def parce que looloo fi amoon. Mhm. mu rab wala mbalax soit nga rab wala nga dem defi mbalax. te pour nga rap pour nga bokk fale nga ñëw kikke comme tout le monde wane ne mën nga freestyle def ay punchline next level def ay figure comme ñëpp mhm. pour gars yi xam ne mën nga rab def comme tout le monde sinon ñëpp ndiroo parce classe boobu noonu gars yi grand yi dañ ko doon classe booy et que loolu boo yëpp a différence mi ngi ci gars yi man je sais loolu parce que fréquente naa yenn artistes yu bëri xam naa xam naa aussi man aussi li ma capable que ni que yenn gars yi wax que ni booy ñoo lu ñuy def xam naa ne am na luñ capable ñun loo xamante ne ñoom capable luñ ko woon wala amuñu woon fitu def ko te ñun am nañ fit boobu def ko donc musique jamono la et que voilà quoi dafa dafa nekk benn affaire boo xamante ni tënku ma ci sama bopp créé mu ci limite je préfère def lu différent que di def lu ñëpp di def avant may génne million flow génne moon benn projet à part ay série de freestyle laa doon def ay série de son par de quinzaine mooy best friday bi maa ngi ko commencé di job ak Yakin mm-hmm. mooy hip hop musique moom laa njëkk def collab euh, moom ci best friday bi donc loolu moo ñu poussé à que ñu ne dañuy def projet mais ñoom bu ñuy wax waxu projet ñoom ay EP lañ doon xalaat ay mixtape ay son affaire mais bon man savais que li ma yor projet album la et que du mixtape du EP mais album la mhm. et que woon ma def ko album donc euh, c'était compliqué à l'époque mhm. parce que ñun la woon ñu ni neen la woon tu vois moyen bi day metti nga war a dem ak les moyens boo war a def ay vidéo war a def ay yenn affaire donc euh, boo waxee album day tiital yenn gars parce que je me rappelle bi may annoncé naan damay def album million <laughs> yoo xamante ni dañ ñëw ne ma da nga yabaate quoi mais loo fi def benn album tu penses que de mais boobu je xaw ma nu ma ko mënoon défendre lu dul ñëw génne projet bi gars yi dem découvrir seen bopp loolu la woon léegi nga génne euh, sa premier album euh, million flow euh, yàggul dara ñu toogaat quelque temps AGBS mayaat ñu beneen projet million flow de luxe ñaari projet yi tegloo yooyu lu waral lool sa pourtant gars yi doyalul woon million flow. bon gars yi million flow ak Deluxe lu ñu gis mais trois projets la entre temps. parce que yaa million flow am na tamit quarantaine session bi. Mm-hmm. session bi bu ñu koy def euh, mu ngi tombé ak corona bi gars yi nekk si couvre feu ñëpp ngi woon seen gaale et que voilà période boobu gars yi ku si nekk ngi génne son di way corona corona bon <laughs> yaa ngi gis ni ko corona mi ngi ñuy tere waaye. léegi bon ñun vu que man ak sama équipe après on s'est dit que bon comment la lañ mën a def loo xamante ni day jouer ci actualité bi sans pour autant def comme tout le monde mais toujours créer benn différence bi mm. après on s'est voilà ñu waxtaan si je pense man ak Mat Pixel ñu créer benn idée mm. muy quarantaine session bi mm. parce que amoon nañ beneen idée donc idée boobu lañu ñu jël ko def ba quarantaine session bi tu vois après ñu ne léegi nañ def nañ surfer ci loolu ci ci actualité bi Mm, def ko à notre manière loo xamante ne dina am benn différence donc loolu moo ñu poussé à ce ñu def quarantaine session def ci ces quatre séries loolu dama koy considérer comme benn EP wala benn maxi mm-hmm. entre temps après ba ñu jógee ci quarantaine session bi gis ne ko ba léegi yaa corona et que am na ay affaire yu bëri yoo xamante ne affaire bi mu ñu koy empêché def million flow bi mm-hmm. bu may def sama sélection provisoire dama jëloon ay son yoo xamante ne dama ko tegoon à côté au cas où parce que du rey son man soit damay joobaat son bi damay toggaat mais du ma def son wala du ma am idée mukk di ko rey di jël beneen idée di ko teg ci kawam su ma amee idée am beneen idée peut-être bu may am après mun na gën bi ma amoon mais bu ma amoon mun naa ko joobaat bu ma gën aussi donc loolu ay son yoo xamante ne mi ngi woon ci version del kii bi euh, premium bi et que ñu bu ñu def choix yi ñu tegee ko à côté yenn son yi moom laa jëlaat joobaat ko comme ay na laa def ba génn ci bi ay million flow sinon après defaat ay remix comme ay son yu ma def ak Doughboy yenn son yu ma def ak Xuman ak Ombre Zion affaire yooyu noonu tu vois donc et noonu la demee ñun ay jobkat lañu et amuñu pour man du du du da ngay job son dem toog denc ko soruk benn cinq ans wala benn deux ans door ko génne et que de nos jours affaire fu mu toll amatul temps boobu noonu espace boobu ngay xaar te vu que gars yi ñu may doom door a xam Mm-hmm. ci entre entre deux mille dix bi. Mm-hmm. et du man kese la ñu xam xamandoo nañu ay révélation bi da ngay xool ci du man kese quoi bëri na ay mm-hmm. révélation yoo xamante ne ñu ngi fii presque mun naa ne chaque 3 mois wala chaque 4 mois nga découvrir benn boy bu bees. de nos fa la affaire yi toll. donc amuñu woon espace temps pour toog pour bàyyi bàyyi gars yi ñu xalaat. donc ñu xëpp ci bomb indi délix bi et incha allah ñu ngi waajalaat yeneen projet kaana du xalaat. dañ ko ciy teg teg. dañu dañu gis ni yow da nga positif euh, maanaam lu waral loolu tout le temps ngay génne ay bagages di ko may da nga yor sa labelu bopp studio bopp wala nu mu demee noonu. émission yi ngay def moom fayoo ko te bu doon da nga koy fay def nga ci ay millions moom faal. fay la ah. parce que matériel yi ça coûte cher. no matériel yi say motos la wala da ngay dem ci beneen studio jaamur enregistré wala. matériel la mais ça coûte dama ko dama ko jaayeen avant dama doon dem ci studio yi di enregistré mhm. donc euh, yenn gars yi mun naa ne. ñoo ma gën a poussé à ce que man a foog ma dem def sama yëfu bopp sama yëfu bopp laa yore mooy mayen waaw mooy mayen set bi ngay gis mm-hmm. maa si nekk di jóob ak sama staff mm-hmm. sama gaal la nekk sama studio la donc maa ko jaayante maa ko ñàkk jaayante ko ba mu taxaw te eh, que xaalis laa ci def comme mu ngi mel ne nga boo borom estimé li ngay jël si studio yi ko kii boo ko dajaloon xëy na mooy loolu man nag jaayante boobu laa amoon mm-hmm. wut samay pexe vu que musique bi laa amoon et bëggoon naa gën a centre à l'aise si affaire yi may def nekk sama gaale free personne ne me dérange mm-hmm. may def samay son au calme mm-hmm. tu vois moo ma gënaloon may dem feneen ñu may jox ay temps de prise wala moo loolu donc loolu moom. loolu bu fekkoon sax loolu la sax li ngay génne nii peut-être du demee nii sax. effectivement parce que dina kon sinon maa ngi dem pour signer ci benn label ainsi de suite mais instant bi maa ngi ci sama yëfu bopp di def autoproduction ma may produire son. Mm-hmm. am naa ñu may nekk en collab à chaque fois du ñàkk quoi comme à l'époque bu may def million flow bi maa ngi ko maa nekkoon en collab ak Yekini Cheikh Hip Music la maa ngi nekk en collab ak Nautilus Prod tu vois euh, mooy ci version deluxe bi instant ñu ngi job léegi demee mun naa ñëw c'est pas benn label bi benn major jóge fee ma nekk ak moom en aussi liggéey ak moom parce que man je préfère def euh, coprod ak nit parce que bëgguma ñu may créer limite je veux su may job dama bëgg libre ci sama liggéey pour l'instant loolu laa gis que ni aw ma jotu fu aw ma jotu foo li ma gën a am jotam mooy def son def musique def ay affaire yu dóob et que vraiment gën a confirmer li gars yi di xaar ci man wala lu gars yi du njort ci man moo romb ko te avant tout balaa gars yi di ma yéene leen man peut-être yéene naa ko sama bopp ba pare xëy yeneen gars aussi dañuy am yéene di la xalaatal feneen mais fu ñuy xalaat yëpp peut sama xalaat romb na foofu noonu euh, da am euh, sa bit may ko bopp wala bit yi yow yaa koy joob wala dafa am benn gaan booy joobal boo xam ne yow si label bi la nekk di joob ak yow mu nekk sa bit may ko wala bit yi yaa koy joob dégg naa ñu ne yenn bit yi yaa koy dóor quoi loolu da koy confirmer la bon des fois des am samay idée aussi parce que si côté bit making du benn affaire boo xamante ne dama koy fësal fësal carrément mhm. mais des fois damay def samay bit damay am ay idée mais la plupart du temps bit yi maa ngi koy partagé que Wonder Beat Wonder mhm. Beat moom moo gagné meilleur beatmaker ci Galsen Hip Hop aussi mhm. euh, parce que man ak moom dañoo benn benn déggoo boo xamante ci côté son dañu suñuy dañoo njuróo ay goût quoi effectivement euh, donc man ak moom peut-être day mel ni comme si que sax man maay def wala moom kese mooy def mais la plupart ma maa ngi maa ngi liggéey yeneen beatmaker yi mais juste liggéey moom moo ci gën a parce que man ak moom la ñuy gis ci ay son man moom la ñuy gën a gis ci ay collab c'est très normal parce que man ak moom ñoo ëpp lu ñuy job ñoo ëpp lu ñuy def ay beat à côté mais wante beat par exemple moom moo nekk beatmaker bu ma ëpp lu may joobal jamono yii moom laa gën a jeganteel mais sinon yaa am na yeneen ñu ma nekk di joobal ah mm-hmm. orchestre bu nuy far bu ñuy faral di gis yow ak ñoom orchestre bi yéen a ngi job ba tey wala orchestre bi benn temps nga leen soxla woon rek après jeex na. non damay job ba damay job ak ñoom ba tey parce que du benn temps kese jeex na parce que man li may def ak ñoom seen liggéey ñoo ànd. parce que son yi may def damay bëgg di ko jouer en live concert su may jouer concert damay bëgg mu nekk en live ak orchestre mais mu nekk ci beneen facette donc man ak ñoom suñu liggéey di continuer tant que maa ngi def musique. que ça soit mu nekk ak ñoom wala mu nekk ak yeneen mais man ak orchestre mënul dañ ci sama carrière parce que mm-hmm. musique bu may def la façon bu may def musique bi la donc. mais euh, mais orchestre boobu sa orchestre lan wala euh, da nga leen luyeeñ feneen nga leen jëlee wala. non du ma ne sama orchestre lañ je sais pas man maa créé dama ñëw fekk ñoom ñu seen groupe ba pare. mais ma ñëw di liggéey ak ñoom calse moom ma boole woon ak ñoom muy waa Ndoumbelane mm-hmm. tu vois après ma am ak ñoom ay link jotoon job daaw bu ñu joobee ñu gis ni que war nañ mën a continuer après ñu continuer di joob ensemble. Mm-hmm. pour l'instant ñu ngi joob ñu ngi def ñu ngi kale ay répétitions su temps des fois mm-hmm. bu ñu amee ay programme la ñuy kale ay répétitions. Mm-hmm. et que ñu ngi maa ngi prévoir def ak ñoom ay yeneen affaire yeneen ak yeneen mm. bon malheureusement instant bi ak corona bi spectacle yi yenn affaire yu événement yi day taxaw mais sinon gars yi dinañ nañ gis yeneen ak yeneen dinañ comprendre que le pourquoi may insister pour si affaire de live bi et puis le pourquoi may jow ak ñoom parce que am naa benn synchro bu ma am ak ñoom maa ngi déggoo ñoom mm-hmm. et li may def ñoom gis nañ ci seen bopp ñoom li ñuy def sentir naa ko mm-hmm. donc jaajëf léegi dañuy dugg ci Galsen Hip Hop Awards euh, ñu gis as best meilleur artiste de l'année meilleur EP euh, meilleure révélation révélation bi d'accord uma ci man en personne EP bi d'accord uma ci man en personne euh, fi may waxee mooy liñ la war a jox nan la ko jox quoi muy tey meilleur EP bi nan ko jox keneen ASBES lu mu génnee du EP dépassé na EP di dem quoi beneen bi mooy euh, nu mu tuddati ba laa waxaa révélation bi ASBES du révélation nan jël révélation bi di jox ko lu moom mais EP ak yeneen ak yeneen yooyu d'accord ma ci yow loolu loo ci bon xam nga Galsen Hip Hop Awards ay catégorie la mm-hmm. dafa am catégorie bu nekk dafa am ay catégorie dafa am catégorie album mm-hmm. tey million flow version premium bi ci euh, catégorie album bi la bokkoon catégorie EP ñu dugal fa version deluxe bi parce que je pense que man ma suggéré woon waaye di soit mu dugal ko mixtape ou parce que ba may génn deluxe j'ai pas précisé wu ma ci côté boobu que album la version premium bi laa mën a wax ni que album la woon parce que dañ tey liggéey liggéey bon bu ñu ñëwee ci version deluxe bi ñeneen ñi seen album lañ ko jàppe woon Euh, mais man tuddewul tuddalu ma ko woon tur quoi. saa loolu rafet na de liggéey bi am na qualité nice na loolu ah, norme album la moom. créé créé ma ko woon euh, kii quoi genre tuddewu ma ko woon album. voilà voilà e projet la woon deluxe la woon mm. suivi la woon quoi. Mm. donc bu ñu ñëwee si Galsen Hip Hop Awards si mënuñu woon jël bon man boog d'accorduma woon ko waaye di jël ñaari projet yëpp dugal ko ci album bi. Mm. parce que doon jaxasoo. donc dama ko euh, dama ko suggéré woon ne ko soit. da ngay def million flow et million flow deluxe mm-hmm. genre parce que ñaari projet yi c'est la même c'est la même chose boo xoolee parce que suite la mm-hmm. li waroon dugg lu waroon dugg fee dugg fa moom laa jël génn ko mm-hmm. ou nga départager ko bii nga yóbbu ko ci catégorie bii bii nga yóbbu ko ci catégorie beneen donc si la ma ne je pense que kon si catégorie EP laa ko yóbbu ou mixtape vu que mixtape y a trop de kii donc EP après je me suis ok bon parce que man moom ay trophée affaire yooyu noonu du ah neex na quoi nga gañe ñu xam nga nga liggéey ñu ne nga liggéey ñu ne la diw moo gañe lii genre benn affaire motivation la quoi mhm. mais du benn affaire boo xamante ne dama ci gën a rey dama ci tardé attardé wu quoi franchement parce que trophée gañe ko bañ ko gañe c'est pas important le plus important mooy le plus important ci affaire bi mooy ëllëg lan la gars yi di doon quoi mhm. ëllëg lan la gars yi di def pour Sénégal lan la gars yi def pour musique parce que like instant bi commencement bi la ce n'est que le début donc lii peut-être neex na nga liggéey at bi deex ñëw na la li nga liggéey gañ nga ci lii ak lii ak lii dama ko mérité parce que dama ko jaayante aussi. mais yow moom hip hop Galsen yëpp la d'accordal affaire bi moom xanaa kay yeneen trophée la waroon jox sa ñu la ko di la dugal ay. mais mais gars yi ñoom dañoo am seen i moo tax des fois du bëgg di leen. di wax war nañu moo jox lii wala waruñu moon jox li ma ci yow moom artiste bi munoo wax benn Malick munul wax mais public bi ñoo la waxal waaw bon public bi xëy na am gars yi nee nañ meilleur caleçon sax yaa ko waroon <laughs> dañoo am yéene ndeysaan parce que xëy na li may def ma leen wuy ba ñoom dañuy am yéene bu ñu sañoon trophée yëpp yëpp yëpp yëpp ma gagné ko mais man kese néew ma fii yaa am na yeneen artistes yi tey ñi ñu gagné artistes yi ñi gagné yeneen trophée dañ ko mérité aussi mm, tu vois tey euh, kenn ak lu mu munti demee kenn mënul wax ne LNN boobu Dip Doundou Guiss mënu woon gagné meilleur album donc bokkoon na ci affaire pro si album yoo xamante ne album bi gën a marqué si année bi la mm. bon malgré que Million Flow mi ngi fi woon mais LNN aussi mu ngi fi woon donc tey ñu jëlee LNN wala euh, def ko maire album c'est très normal parce mm. que LNN mérité jël meilleur album donc foofu du ma bëri du ma côté du ma kii peut-être côté révélation bi bon su xëy na gars yi ñoom ñoo. gars dañoo am yéene si yow rek mais doo révélation moom. waaw waaw bon man. mun nañu dañu la yéene ay trophée yéene ay trophée ba jox la trophée boo xam ne sax moom moo. am na ñoo xam ne révélation lañ ma lañ ma gisee ah parce que am na ñoo xam ne ñu may door a xam ci at bi par exemple yenn gars yi nekkoon ci jury bi wala yenn gars yi nekkoon ci gaar seen hip hop awards bi wala public bu large bi tey ci hip hop bi 2020 lañ ma gën a xam mm-hmm. tu vois. te révélation bu ñu koy wax mooy mooy lan mooy mooy ko xam ku gën mooy booy ba nga xamante ne kuy door jug kuy door a fës mais xëy na tey y a boo xamante ne xëy na yow gisoo ko si man maa ngi ko si gis loo xam ne c'est très rare mm-hmm. quelqu'un bu ñëw jël révélation en même temps jël artiste de l'année loolu c'est c'est très mooy mi ngi mel ni c'est pas na laa la ko mën a expliquer ban exemple laa la mën a jox c'est pas ça mais tu viens tu nga ñëw ci même si benn année bu ñu la amee ñépp si année boobu noonu ñëpp xam constaté que ni sa liggéey moo gën a jaar yoon ci kii wala yaa gën a fës ci année bi mm. mais en même temps ñu gis ni koy parce que de quoi tey bu ñu may xool nouvelle génération lañ may xoolee mm. donc ci révélation bi lañ ma mën a xoolee donc peut-être loolu la yaa saa aussi 2019 la fël c'est que yàgg na ko trahi oh. ah du muy def nii waaye bu muy def nii ñu bëri sax léegi lan la ko xamee mais ah damay naan rab sax la gën a mën ko xëy na nag léegi mayetuñu yenn kii mais man aas bu daan rab sama xol day sedd man yàgg naa ñëw jii pop aas di ko fekk muy baatal muy def gaay lu ñaw mais xam nga léegi musique bi dem na ba dominer partie rab bi dañ ko koy nangul bu baax a baax binda parce que dafa dafa mais fu musique toll la like bu ñu demee bu am yoo xamante ne su ma ko dina ñëw après et puis mais may ñu may ñu nag benn son boo xam ne rab la quoi aas ñu xam ne yow ba tey yaa ngi. bari na son rab yi bëri na jar may may na jaay dem dégg dinañ seen bopp. dinañ gisee seen bopp son rab yi bëri na trop trop. Et donc musique bi peut-être yi dafa gën a fës ci ci yaa ngi rab de rab bi léegi ko neexal trop as par rapport ak parce que récemment parce que affaire bi yamul ci ñaari projet yu ma jot a génn mm-hmm. mais nañu xaar après suite bi mm-hmm. parce que man à la base hip hop laa def dafa nekk benn affaire bu ma neex mm-hmm. tu sais pourquoi parce que le fait que damay libre su may bind samay texte le fait que may am freedom su may def samay son genre lépp lu ma mënul tey jaaxaaloo jili der waxu ko su ma toogee si studio mun naa bind ci hip hop bi et puis y a des trucs yoo xamante ne da ci am solo mm-hmm. mais ku si nekk ak ni nga koy defee ah bu gars yi fàtte loolu xam nga tey jii nii mën nga à l'époque peut-être bu ma ko doon def amoon na doon tax lu ma doon poussé à ce may rap comme tout le monde mm. mais instant bi am na ne moom mooy poussé à ce que may def vraiment mm. man sama gis gi dama jàpp ne moo gën a yaatu mm. et que bi pour man waratul yem ci rappeur bi kese ak melomaan bi koo xamante ne rap kese moo ko intéressé donc ñun ñoo mën a xëcc beneen public bi ñoo intéressé wu vraiment ci rap bi parce que tey grâce ak benn mélodie bi may def wala benn son bu may def ci benn affaire mën na poussé benn koo xamante ne hip hop mosu ko intéressé mu dem découvrir loolu mm-hmm. mais dem découvrir leneen loo xamante da koy déglu loolu neex ko donc loolu di ko neex moo koy poussé bi mm-hmm. ba suba beneen artiste mën a génn mu ma dem mm-hmm. ñu bi ñu ñëw vraiment ci mou ci ci mood bi moodu monde hip hop bi mais su fekkee ni que tout temps dañuy def yenn affaire yu gars yi dañuy des seen après ñun ñu des suñuy quelques nit yoo xamante mooy loolu boo génnee album ñoom duñ ko jënd de mais sa sa sa link ak waa reptile mi ngi naan ba tey sa link ak Dip dundu gis waaw loolu du deñ loolu du changé loolu mi reptile sama sama kër la mhm. du ma ne reptile sax mais damay wax parce que reptile tur la rek su ma ne voilà mais gars yi fa nekk quoi samay nit la ñu mhm. samay nit yoo xamante ne dara du changé quoi. bi nga jëlee bi nga jëlee meilleur artiste l'année ak trophée yooyu Dip woon na la félicité la wala. moo njëkk a partagé photo bi. donc maa ngi récemment gars yi di créer affaire loolu ñoom la rek seen xalaat la mais moom yooyu sama yoon new ci ek intéressé wu mais Dip nee na moom trophée bëgg ko après yow mais c'est très normal su ko neexee moom moom moom gisoo woon ni dafa waroon wax carrément trophée bi AGBES moo gën a mérité nañ ko ko jox wala pourquoi may gis loolu du ma ko gis <laughs> non non loolu du ma ko gis du ma gis yooyu la bu defoon loolu tamit après day gagné ay points yu bëri waaw booy ci communication xëy na bu ko defoon xëy na bu ko defoon mais mais mais mais xam nga tey jii nii gars yi peut-être ñoom ñoo bëgg a jëlee type lu mu def négatif ñoo ko bëgg a jëlee mais ku ko bëgg a jëlee négativement di nga ko jëlee foofu. non c'est lu tax gars yi di ko jëlee lu négatif parce que moom dafa jël ba doyal après mu taxaw xam nga bëgg a dingat aussi mais jëlaat bu dafa jël jëlatul ñu ne waaw mais ba léegi mi ngi jël donc cela veut dire que bàyyiwul mi ngi liggéey. donc liggéey bu mu liggéey moo ko permettre loolu xëy na moom négativement boo ko boo liiree boo xoolee affaire mën nga ko jëlee ci beneen contexte boo xamante ne yow du la nekk mais mun na nekkoon mbalak mun na nekk mu am lu muy xeex loo xamante ne xëy na gars yi comprendre wuñ ko mais xëy na bu ko xeexee ba mu taxaw ñëpp dinañ xam la moo tax mu doon def loolu mm-hmm. parce que euh, boo boo xoolee du du du loo xamante ne pour man war na mën a indi benn différence entre ma a kii parce que idée lu nit lii nekk ci xel nit ak ci xolu nit mu ko yëg du ko def mm-hmm. loolu du man maa koy xam donc du mu ci juger kenn mm-hmm. tu vois et puis li mu def noonu ay xaw ma na la ko gars yi di waxee wala na la ko gars yi gisee mais loolu xëy na ma ñoo ko gars ñoo ko jëlee mais man gisee wu ma ko dara man sentiruma ci dara te awma lu ma ciy bàyyi xel tu parce que euh, du dara quoi loolu du dara loolu dara newu ci. mais rythme bi ngay demee nii moom ngay continuer encore di di jamaat ay projet mais bu fekkee rythme bi nga jël nii bëgg ko continuer aas ah, est que di nga mayti gaay dara. a ah, man damay liggéey ah, man amul tegg tàng amul bàyyi genre all day maa ngi job musique laa am damay liggéey quoi xaw la laa ko mën a expliquer mais c'est que nekk ma fii di créer ay kii man damay def son parce que man dama bëgg musique donc lépp lu may yëg dinaa ko def te heure bu ma ko sentiree génn dama koy génn. Mm-hmm. voilà su ma suñu xëyoon 31 décembre mu sentir génn projet ma génn projet fév janvier février à chaque fois mu amee yëg-yëg bi dama koy génne parce que def ma musique pour comme pour gars yi def ma lii wala pour ñu parce que ñu ngi may xaar mais dama koy def parce que avant dara man maa ko bëgg parce que moo nekk benn affaire boo xam ne dafa bokk ci lu may dundal. te j'aime bien di partager samay samay idées di partager samay yëg-yëg ak nit ñi ak fu mu mënti tool ak li ma ko centré dama koy defee noonu laa koy defee mm-hmm. donc projet yaa ngi ñëw maa ngi joob mm-hmm. te incha allah suba suba sax mun naa xëy génn projet donc loolu bu mu bu mu bett kenn tàggoowuma kenn. waaw effectivement loolu la. pourtant bind bu doy waar. mais mais mais bon suba déwén am na. Mm-hmm. après déwén am na trophée yemul ci ren kese. et du Sénégal kese la ñu war a jël trophée. voilà yaa côté international bi bu baax ndax sa musique euh, yaa ngi am ay retour côté international beeg yooyu ak ay yenn contact ba xam. waaw bien sûr maa ngi cool ah, maa ngi sant maa ngi déggante ak gars yi maa ngi am ay retour partout. Mm-hmm. pour liggéey bu mu gën a gën a yaatu. parce que lu fi lu gars yi am ci musique yëpp war nañ mën a am lu ko raw. puisque tey euh, potentiel wala possibilité bu Youssou Ndour am war nañ ko mën a am. ak keneen ak keneen parce que. musique bu ñuy def gis naa ngeen def dara yow Youssou Ndour ah. waaw bu ko laajee man tamit aussi plaisir lay doon si man parce que Youssou Ndour légende la ci musique sénégalaise. loolu Malick taxaw leen si. ah mais Malick taxaw. mais pour man liggéey rek parce que bu ko wóor bu jotee rek dina sotti. dina bu jotee rek dina sotti tey du loo xamante ne xam nga featuring tamit du waruñ koo forcer quoi mm-hmm. du da ngay fil Youssou Ndour rek dem topp Youssou Ndour sonal ko pour def ak moom Youssou Ndour aussi artiste war a fil li ngay li ba pare bis bu ñu Youssou Ndour ñu war a def ak moom affaire dañ koy def loolu du Wally Seck ak Bass Thioung xoma ni tout le monde parce musique la affaire amul xaaj seen mais mm-hmm. l'essentiel que mooy nu nga ko centré na nga ko def mm-hmm. et puis na jaar yoon mix bi jaar yoon master bi jaar yoon ku koy déglu bu ko déglu xam ne mu ngi déglu qualité. da ngay faral di utiliser million flow flow man damay déglu say sound mais des fois da may jam ay flow yoo xamante ni da ngay naan gan gi sa waay kii est-ce que sénégalais la quoi làq bi mooy tax nga xam mais bu doon làq bi nii sa waay man duma la teg sénégalais ah, parce que waaye bëri nga technique waaye. <laughs> allah en fait million flow c'est très normal bon buñ su may wax million flow. c'est un boo xamante ni du dañ ci man déjà moo nekk sama premier projet mais Million Flow bu ñu ko génnee ci affaire de projet mën na nekk sama étiquette mën na nekk loo xamante ne mooy mooy âge de best quoi mm-hmm. parce que euh, damay bëgg di différent di créer ay affaires mm-hmm. euh, tey su ma defee li suba nga dégg ma ci leneen grand suba mm-hmm. bëgguma monotone bëgguma tout le temps may gis ci logique bi donc looloo waral Million Flow Million Flow ça dire tout en melting pot mélange la couleur différent couleur mm-hmm. mën na la xaar du yàgg dara ñu ne Agabès génn mi ngi kaaw di ko tàngal euh, loolu bu amee baa doon ñu def lu nu lu bi def dem toog baa doon la soxla de euh, papare non papa demul toog papa mi ngi liggéey non mais gisatuñ ko waaye mais damaa bu mel noonu jékki-jékki saa yi seey lu muy lu muy am gënalu ko lu mu doon am fii xam nga tey ah, moom laa lay wax man la boo demee tamit musique na trop gars yi di kii mais est-ce que li ngay def mu ngi lay dundal est-ce que yor na la mm, parce que yi toll foo xamante ne dañuy am seen i seen i seen i choix bopp dañuy am seen i yëg-yëgu bopp def leneen mm-hmm. parce que life dafa am lu muy àndal mënoo di xëy chaque jour nekk booy suba da ngay màgg mm-hmm. donc man musique laa gëm musique laay def lépp fépp foo xamante ni fu ma musique mën a yóbbu loo xamante ne lu gën si man la dama koy def sans pression mais Sénégal laa am mhm. te moo nekk loo xamante ne mooy sama base ak lu mu fu mu mënti dem Sénégal laay représenté mhm. te guddi guddi guddi guddi Sénégal lay doon donc ak fu ma mënti dem lu mu metti métti lu ma yàgg dinaa lu ma ne sax yàgg mais lu mu tar tar mhm. lépp luy am fii laa koy indiwaat bokk ak samay mbokk ak samay proches yes ah, émission bi jeex na mais balaa ma lay bàyyi nga dem euh, hip hop seen yëpp amal nga leen jukkal yi rappeurs yi melomaan yi ñëpp amal nga leen jukkal bëgg leen fii dañuy seetaan émission bi ñoom ñëpp. bon maa ngi franchement waaw comme ni nga ko waxee maa ngi déjà maa ngi lay bëggee yow mais maa ngi béggee sama staff di bëggee sama waa gaale sama waa kër parce que ñoom ñooy fan sa number one yi ah, di nuyu gars yi suivre émission bi di bëggee hip hop gaal seen grand yi yenn grand yi nga xamante ne parce damay dugg je Facebook du benn affaire boo xamante ne dama ciy dugg tout le temps mais des fois mu dugg gis benn grand bi wax ci man mm. et que c'est pas donné à tout le monde mm. du ñëpp ñoo am sens boobu am na ñoo xamante ne wax rap nañ ba bàyyi kenn wax musul wax ci ñoom tey soo demee ba am yenn grand yu lay soutenir mm. ba ci yenn ba ci vote yi da ngay gis ne que gars yi dañ ci jàpp en masse donc lu ma def lu dul di leen jaajëfal di leen wax merci encore merci parce que kontaan naa ci ñoom et puis affaire yu ñuy def daf may gën a pousser à que wala daf ñuy gën a pousser à ñu gën a suñu bopp gën a sëgg si job bi gëm ni que war nañ ci mën a am lépp lu fa nit teranga bépp teranga bu ci nit di am war nañ ko ci mën a am donc euh, encore une fois di leen bëggee di leen jaajëfal si yéene bu ñu am si ñun voilà ñun lu ñu bëgg ku si nekk si ñoom moo ko xam yàlla na ko yàlla defaral xool lu gën si ñoom ak lu war si ñoom mu defal leen ko. mais as seetlu naa benn affaire tàggatoo nan mais dama gis te communication léegi chill nice par rapport ak bi ñu njëkk a def émission quoi da nga nekk di ko jàngaat. loolu waaw loolay yoon. lépp looy liggéey dañ si war di évoluer communication dafa bokk ci musique bi dafa bokk ci hip hop bi mais c'est-à-dire su fekkoon ne toog sa gaal def rap sans bañ a def télé bañ a def rajo man man man choix boobu laay def toog sama gaal def musique parce eh, que. émission moom animateurs yu bëri loolu la ñuy aalo aas moom dafa mel ni bëggul rajo ku ko invité du ñëw jàppal baal. non du question dama ko bañ mais dama si sawarul c'est pas un parce que dama koy wax ci ay son bëgguma siw bu ma kenn publicité la wala ay affaires yooyu noonu bon xëy na wax bi am na boo am noo koy déggee mais am koy jàngatee di nga xam lu bëgg wax xam Gaston mi ngi ko doon wax ci defoon na ko ci mooy album bi wax noonu wax tuuti xaw ma job voilà tuuti wax la tuuti wax job lu bari man ci esprit boobu noonu lay doxee genre je préfère nekk à l'ombre liggéey def li may def di génne samay son gars di ko mais bon c'est très normal nag boo defee son wala boo defee yenn affaire yi foog foog ngay dem di expliquer gars di leeral ak ñoom mhm. mais su mënoon ñaaku su fekkoon amoon ci carrière man du ma déranger de ay média ay yi nii nii. da nga ko bëgg moo tax quoi. <laughs> voilà donc c'est très après loolu la donc ay communication affaire yooyu ci ci affaire la bokk. Mhm. donc c'est normal ñu ñu ñu ñu si évoluer comme ni ñuy évoluer ci musique bi. Mhm. suba mën a nekk ci leneen nag leneen. jaajëf ñu ngi lay bëggee bu baax a baax As. jaajëf jaajëf respect ci moom ñu ngi koy bëggee bu baax a baax As The la woon from Waygeeja euh, Million Flow euh, meilleur euh, artiste de l' année meilleur EP révélation de l' année première émission am nag moo nekk nii ah hélas di ci bëggee sama waaj ji Malick si ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di bëggee mouvement pop Galsen bi yëpp di joxe gaay rendez-vous beneen yoon respect ci ñëpp Galsen sama.